ginnaaw nuyoo bi ñu sant leen ànd beeg Aladji Malick TV am na solo lool ànd boobee yàlla na jëm kanam weer wi feeñ na ah, ci Sénégal gi yëpp gox yi nga xam ne moo fasanti ko amul fenn foo xam ne ah, ci fukki région yeeg ñeent am na weer wi ah, feeñu fa kon loolee daanaka am solo bu baax a baax li ñu ci teg mooy gars yi ngeen ci leen ngeen nekk te ngeen jublu ci li nga xam ne mooy weeru koor wi nga xam ne wu am solo la weeru koor wi nga xam ne weeru barkeel la njaayeen yéeg ñoom ñëpp nag daanaka nan defum diiraan préparé koor gi nag te fas yéene alamin alaaji Maalik gi ñim àndal ñoom ñëpp ñi ngi baalu àq ñëpp tey baal ñëpp ñoo xam ne daanaka amel nañu àq ndax yéen borom yi baax ngeen ay abonem daanaka ñu baax ngeen ñu tedd ngeen ñu am kersa ci bile àdduna jërë ngeen jëf ànd bi rafet na